Pokar mais ñu ngi amati mbéttu bu baax ñëw toog ak ki nga mooy soxna yaay Fall bu Sonko que ñu fas waxtaan ak moom tuuti ci li nga xamante ne mooy ci réew mi fas yéene waxtaan ak moom tamit tuuti ci li nga xamante ne mooy euh, seen Pastef pas-pas ci li nga xamante ne mooy ci réew mi Sénégal jamono ji gis nañu réew ñu ngi lay nuyu baax di la ngi lay delloo ziar bu baax sox sëñ bi dëkk unité 18 jiite benn mouvement bi ñuy wax ànd liggéey Sénégal Eh, di rafetlu teewaay bi ngeen teew di wax kontaan nañ trop ñi ngi ci liggéey bi comme niñ ko waxee rek toujours ci terrain bi la nekk di liggéey ak eh, li nga xam ne mooy jëmale réew mi kanam ñun si yooyu la nekk incha allah ànd jëmale Sénégal kanam ngeen créé beneen mouvement ànd jëmale Sénégal kanam ci yan anam ngeen taxaw seen taxawaay lan la ci réewum Sénégal suñu taxawaay yaatu na suñu taxawaay ci jigéen ñi moo ëpp pour jigéen ñi gën a gis seen bopp ci li nga xam ne mooy réewum Sénégal parce que bu njëkk ku nekk xam na ne affaire yi dafa doon féete boor ñun nag dañoo ñëw pour partager kook ñëpp ki nga xam ne bokk na ci ak ci bokku ci ñëpp dañ koy bokk ak ñoom ci wàllum liggéey bi li nga xam ne moom la ñu bëgg a yaatal rek moo tax ñu tuddee ko mouvement ànd liggéey Sénégal 1 ba 26 ku nekk xaj na ci liggéey bi kon loolu moo ñu tax a jóg coow li bari na nag ñun dañuy dékku coow boole kook liggéey lu coow li bari bari ñun li ñuy liggéeyee moo gën a jëf moo gën a feeñ mais dina gën a feeñ nag parce que ñu ngi si terrain bi di ko di si dox te di si wax te di gis ni nga xam ne noonu la Seydina Ousmane Sonko di doxale ak euh, Bassirou Diomaye Faye kon ñu ngi ci ay tànkam daal di ko jàppale ci côté boobu laa bëgg waxtaan yow mooy ci côté li nga xamante ne mooy ci côté liggéey bi ah li nga xamante ne mooy ñu ànd jëmale Sénégal kanam euh, liggéey bi ci ci ci yan côté rek la ngeen ko bëgg a basé wu yem ci wala pare ngeen pour liggéey ci leneen ak leneen pour créer itam yeneen i waaw li ñuy li ñuy liggéey moom ci réew mi bari na eh, ci wàllum jigéen ñi parce que bëgg na jigéen bu nekk am métier métier yëpp nag ci la ñuy yëngu pour jigéen bu nekk am métier am ay diplôme mën a gis boppam ci réew mi. kon loolu pour jàppale Ousmane Sonko rek moo tax ñu dugg ci politique bi te noonu la taxawee ànd ak moom ba nga xam ne du jeex Ousmane Sonko ay mbiram du jeex mook Jomaay ñu doon fee fas yéenee nekk di defar di defar rek incha allah. incha allah li nga wax léegi-léegi lu am solo la ci ay kàddu que ñu mais dañoo gis jamono ji ci loo xamante ne mooy ci ko côté réew mi xam naa ne tooguñu sax mais am na loo xamante ne def ngeen tamit ay performance tuuti ci côté li nga xamante ne mooy ci dund gi yëg nañu dund gi wàññeeku na mais dafa am ay jeunes yoo xamante ne tey ñoo doon xeexal Ousmane Sonko ay jeunes yu woon tamit volontaire woon tey ñu xale yi gis barki démb ay image yu garaaw ci euh, fële ci prison campénal bi xale yi def ay grève yoo xamante ne tey ci ay problème de fouillage ci seen diggante ak yi nga xamante mooy ci euh, garde yi yooyu am ci te jeunesse boobu noonu nee na ñoom ba ñuy taxaw di xeex euh, dañoo taxoon pour ëllëg bu joomaay toogee ci réew mi jàppale leen ci prison bi tamit ñu te jëmmi Sonko taxoon tamit ñu bari dugg ci waaw comme niñ koy waxee rek liggéey bi moom dafa yaatu ñooñu li ñuy xeex ñun moom lañ xeex ba jël réew mi te loolu la ñuy continuer di xeex ba jàppale ñi nga xam ne mooy sën ñi surtout sën yi liggéey bi amul mais Seydina Ousmane boo gisee ay projet nekk ci nga xam ne moom mooy projet te dugg ci ci mbir mi di nga xam ne kii liggéey moo ko tax a jóg te liggéey bi sën yi ñoo ko moom surtout góor ñi ndaw ñi toogaay bi ñuy toog ci kii yi loolu amal amal amaluñu njariñ daal ñun dañu bëgg ku nekk nekk ci liggéey bi di liggéey Seydina Ousmane Sonko ci loolu la nekk ñoo ñuy xeex nag maanaam dañu xamul li ci kanam parce que ñun ñu ngi doog a toog boo xoolee ñu ngi ci 4 mois ci lan toog dund bi defe naa ne fan yee ñu ngi ci doon wax ku nekk di wax di wax di wax waaw bi wàññee defe naa kenn waxatul te wàññi boobu dafay gën a gën a law hmm. moom ah, moom yokku dootul am dañuy gën di wàññi rek ci liggéey boobu la nekk ñi nga xam ne ñoo nekk ci prison bi di di xeex loolu seeni mbir la hmm. maanaam dafa am ay sabotage yi ciy am ah. waaw mais ci wàllum liggéey bi moom wax dëgg yàlla hmm. Ousmane Sonko mi ngi ci ak Jomaay boo xoolee jomaay bërki démb rek bi mu génnee si terrain bi nga xam ne kii liggéeykat la président bi dem si mbedd mi dem si terrain bi di dox gisoo ko fenn yow yàgg nga fii di seetaan jamono yi ki sàll loolu musul am mais jomaay dafa wàcc pour liggéey ñooñ tëdd ñu nelawuñu ñun tamit ci loolu la nekk ñun duñ tëdd duñ nelaw dañuy liggéey pour suñu quartier pour jigéen ñi pour sën yi nga xam ne ñu ngi toog pour mën a jàpp si dara si loolu la ñuy dox guddi ak bëccëg est-ce que mënuñu dem dem prison yi defal xale yi ay formation yoo xamante ne ëllëg bu ñu génnee am ci lu ñu jàpp parce que dañuy seetlu saa bu xale yi génnee dañu nekk ay délinquant la ñu delluwaat ci ci yi ñoo dañ ciy liggéey dinañ ko gën a liggéey bi dina gën a law ñoo nekk ci prison bi dinañ leen defal ay ay ay ay pour ñu mën a jàng métier ci prison bi buñ génnee mën a nekkaat ci leneen mais dafa ne ñaanu ñu maanaam ñiy génn di gën a yàq wa si réew mi loolu maanaam la bëgg a defare sën yi ci nga xam ne ñoo nekk prison bi parce que da ngay gis sën bu génn prison ñëw gën a doy waar mhm. loolu nag dañ koy dañ koy liggéey ci biir prison bi ak ñoom yaa ngi dégg ba nga xam ne bu génnee loolu ñu nekkoon dootuñu ci demaat liggéey bi daal yaatu na te wax dëgg yàlla dina gën a dina gën a baax mhm. incha allah rabbi dañoo jël benn xale bu ñuy wax Ousmane nii moog Joomaay ñoo bokkoon benn chambre comme mu ne moom moo nekkoon moo ko doon servi ma doon taxaw ci ay affaire am yu bëree baree baree bëri kenn xam na jafe-jafe ya fa nekk mais ba mu génne ba léegi dégg ñu leen ci dara te et amoon nañ ay formation yoo xam ne dañ ko pour ay ñu am ay permis de conduire bu ñu génnee mën a jàpp ci yooyu mais lépp dafa mel ne lu nax saay déggatuñ dara ci kenn ci loolu moom fi mu ne nii xam nga luy problème bi eh, maanaam comme li indi wàññi bi rek bi ñu doon wax wax wàññi bi wàññi bi gis nga dëkk bi ni ñu doon waxee affaire yi noonu lay demee rek comme dañuy doog a toog dañuy nekk ci li jóge ci loolu dem ci leneen mhm. incha allah Seydina Ousmane Sonko ak ki mu àndal moom ku nekk xam ne liggéey leen tax a jóg te ñu tëdd ñu nelawuñu ñit ñi ànd ak moom it tëddu ñu nelawuñu pour réew mi mën a avancé seen bu nekk di gis boppam ci dëkk bi dañoo bëgg dëkk bi mel ni pale te fa lañ jëm billaay fa lañ jëm ak ñoom ñu caaxaanu loolu sëñ bi dañuy liggéey mhm. liggéey rek a ñu tax a jóg mhm. incha allah te ku nekk dina gis boppam liggéey Sénégal yomb na yomb na yomb na parce que entreprise yi nga xam ne mi ngi ciy liggéey ak ñi nga xam ne Macky Sall bu dëkk yow yow ku nekk xam ne ne Macky Sall am xaalis doo génne doo ñëwee génne xaalis bi loolu nag dafee jeex Sonko dane ku am xaalis defal sa projet nga liggéey sën yi mën a ñëw liggéey foofu kon mbir mi day yaatu bu ku nekk defee loolu génn li ngay li nga yor di ko partager ak nit ñi ñëpp dañuy daal di liggéey bu ko defee sën yi di kaas nii dootul am ci yooyu la nekk incha allah rabbi dëgg la seen euh, problème mu Pastef wala problème mu euh, li nga xamante ne nii ah problème mu li nga xamante ne mooy euh, waa kar Ousmane seen problème ak Bougane lan la. no problème a Bougane moom metti méttiwul Bougane instant yi nii xam nga wax a ko dese xam nga ku bëgg ku bëgg ku bëgg coow da ngay coow mais ñun danoo coow tontontewul ak moom ñun dan nekk ci lu lekk rek da ngaa dégg ñu tontu ko. kenn du ko tontu audio ba mel lu si saaga. <laughs> déggoo li ma la na saaga lu ko neex tàgg taxul fenn ñun d'accord nan nanu saaga mais nanu liggéey man ku ma romb na ma saaga mais man na gis ne maa ngi liggéey man foofu laa dekk. foofu laa nekk. mais lan la bugaan. bugaan dafa mer rek li mu bëggoon loolu moo amul. muy lan muy bëgg def deuxième pour ñu àgg deuxième tour mu bokk wala mu wut ku mu jàppale loolu amul. Macky saal day dem te dem na. ki war a toog rek mooy toog. Mhm. waaw Diomaye moom moo war a toog te toog na. Ousmane Sonko nag dafa jóg pour jàppale ko ci li nga xam ne mooy liggéey bi te loolu mooy continuer kenn mënul yàq seen diggante kenn mënul def dara ci diggante boobu suñu borom moo leen fondement mhm. andi leen fii ci réew mi ci Sénégal pour ñu liggéeyal waa Sénégal ci loolu ñu fondement nag ci kàttanu suñu borom ñoom dinañ ko liggéey te Sénégal dina ci gis boppam. Mm-hmm. incha allah loolu. Mm-hmm. bugaan dañ ko bàyyi muy wax rek comme moom moom mooy wax ji. Mm. ñun jëruñu koy tontu man loolu laay ñaan man du tontu kuy wax. Mm. kii wax maanaam damay jëf moom muy gis xolam di gën a bon muy nekk ci terrain bi di wax yow naka ngay jullee jumaaya war a julli war a ñaan yàlla war a ñaanal sa njaboot gi nga xam ne sa sa soxna si nga xam ne génn na àdduna. ci journaliste yi bu ñu taxawee di wax ak yow. Mm-hmm. lancé message boo xam ne ku ko dégg xam ne Bougane mi ngi ci yoon mais yow defoo dara lu du di mer ah suuru julli ngay mer kooku nekkul ci jàmm ñun ñu ngi ci jàmm nag mais est ce que nekkul loo xamante ni da koo yàgg jàpp parce que gis nañ tamit <laughs> li nga xamante xaw man ñan ñoo koy mokkee naan ko jëloo xolu Bougane ngeen tànkal ci café gi non booy ñooy ñooy ñooy tooñ rek mais lu ñu nekkuñu ci loolu lool ay tooñ la rek mais ñu nekkuñu ci loolu waaw non dégg lu ma la na mer ba tooñ na saaga moom moo xam mais ñun lu nekk moom moo yoonu liggéey pour ndaw ñi liggéey jigéen ñëpp di gis bopp ci seen bopp ci dëkk bi ñun ci loolu la nekk guddi ak bëccëg nag ci la ñuy dox Ousmane Sonko déggoo ko ci wax ak i tontonte déedéet nelawuñu nag ñooñu tëdduñu benn jour pour nelaw dañuy liggéey rek waaw ñooñu ñu ngi ci terrain bi chaque jour waaw ci liggéey la nekk waaw ci liggéey la nekk incha allah mais dañuy gis tout le temps jeune Pastef ñeen ñi nga xamante ni tey yéen a nekk Pastef yéen ay patriote tout dama gis jamono seen communication ba ci ci mel ne Azura communication Azura yéen doon ko gisee. non Azura yenn saa yenn day kii rek mais xam nga rek Sénégal moo mel noonu dafay tollu benn instant boo xam ne li nga sonnoon ak Macky Sall li mu leen teg tamit dafa métti woon. Azura li Macky Sall li mu ko teg dafa métti loolu nag bu fekkee dañ la koo teg nga nekk ci dëkk bi di dund nii yenn saa day ñëw. day ñëw ci xelam bu ñëwee nag du xam nu mu koy nu mu koy waxee. loo tax muy génn di di def noonu Azura amul benn problème. Baye Fall dëgg ngi noonu mooy Azoura Fall Baye Fall dëgg ngi noonu ñooñu ay liggéey liggéeykat lan Ousmane Sonko àndul ak kenn koo xam ne liggéey taxulaa jog ñi mu àndal ñëpp liggéey leen tax a jóg liggéey senegal pour ñëpp gis seen bopp man dinaa liggéey ba ku nekk gis ko foofu laa jëm waaw maa ngi Sonko ba mm-hmm. waaw incha allah ñu ñu ñu bari que ci jeunes yi tamit ñooy que ni grâce bi ñu grâce ren li ñu gracier ci ay prison bari prison yi bariwul 300 personnes ci benn chambre rek day am ay plus 200 et quelques personnes ñu gracier 300 pour lan te ñu ne euh, mois de weeru koor. Korité grâce ñu ñu ne mois d' avril kenn def grâce tabaski bi ñu doon xaar pour ñu def benn grace bu rëy rëy rëy pour ci xale yi mun a ñëwaat ci biir dëkk bi mën a dugg ci société bi liggéey am lu jàppale seen njaboot yi ak seen parents mais ñu ne ren bi bariwut loolu tamit bokk na leen gën a metti lu waral keroog ñuy jàmbaarlu ak li nga mooy takk yi ci biir non grâce bi moom dinañ ko gën a yaatal xam nga ñu ngi doog toog tamit sëñ bi munoo toog a toog bëgg a def lépp si benn jour mënul nekk dangay def ndànk-ndànk ba nga àgg fa nga jëm li mu génne noonu bu dewee nee mu defaat leneen bu yàggee du baax ñun ñu ngi fi te jógee guñu fi kay liggéey bi day gën a yaatu xale yi bu ñu yàkkamte nan xam ne fii réew mi maanaam dafay yaatu li tax muy yaatu mooy maanaam dañ koy sensé suñu koñ bi dina dem ba yow boo fi jaar doo xàmmee ndax fi nga jaaroon ñun foofu lañ bëgg a yóbbu dëkk bi foofu lañ ko bëgg a yóbbu de kon seen yooyu nga xam ne ñoo def ban jàpp leen nanu toog xam ne maanaam dinañ leen fa génnee te dinañ bokkaat ci nit ñi pour société bi mën a gën a développé parce que loolu la ñuy ñaan ñu ñëwuñu pour tëj nit wala pour sonal nit wala pour andil ko problème mm-hmm. doxuñu ci yooyu ñun liggéey rek mm-hmm. jëf ñàkk jariñu sëñ Fallou dëgg la toogaa bi yàggul mais ñëw ñëw ngeen ak allir boo xamante ne tey ngeen ñëw am fa lañ fekkoon réew mi am fa ko bëgg a yóbbu mais ñu gis euh, xaw ma dañoo yàkkamti sénégalais xaw ma ñoo yàkkamti xaw ma nu fa demee mais actuellement yëngu fépp yëngu na fi mu ne nii daal non sénégalais boobu moo mel noonu moom day bëgg tout lépp sotti mais affaire yi demewul noonu nan def ndànk-ndànk rek yow ceeb bi mi ngi nii wàññi nan ko wàññi diwlin ah loolu loolu neex na sëñ bi te kanam la jëm bu déwénee dañ koy gën a wàññi waaw gisoo Touba ndox ma na muy na muy na na muy bale xanaa ah Touba ma ngay naat feneen ak feneen noonu lay def tëli boo gisee yeneen dëkk yi waaw ñi ngi koy defan ñun suñu dëkk ba wax dëgg yàlla xam nga man tamit bég naa ci nan koy waaj a def noonu keneen keneen noonu kon affaire bi liggéey rek la mhm. wax ji daal moo bari ñun nag danoo tontuwul kenn danoo nekk ci wàllum liggéey bi di liggéey ñoom ñiy gis ci lool la nekk sëñ bi bilaay dañuy liggéey rek waaw liggéey la nekk amul wax waaw liggéey rek mun nañ xaar ci yenn Sénégalu 2030 beneen Sénégal. non beneen Sénégal ñun ñu ngi jëm ba 30 30 30 l'an 2050 ñun dañuy dem de sëñ bi projet bi dafa yaatu jeexul jeexul de lii ku nekk da ci gis boppam sëñ bi. si loolu la nekk guddi ak bëccëg. te ku gis ñoom ni ñuy doxalee rek ni ma koy waxee chaque jour. booy wax ñoom ñi ngi jëf. Ah. cheque jour nga gis ñu génne fu bees. ah, ah bi ñuy defar mbalit bi. di def set setal dëkk bi jomaay dafa génn sonkoo génn ñëpp génn loolu yaawtu am sëñ bi te loolu moo lay wan na ñii liggéey leen tax a jóg te ci liggéey bi ñu ngi ci waaw incha allah rabbi euh, bi mu def France dem voyage moom kontaan si kontaan naa si parce que ñun bari ñi ngi dinget di wax lu nekk mais ñun comme ni may wax chaque jour moom di li liy wax ak ñoom li nekk si ñoom bokkul bokkul ñoom danoo simple gis nga fi ñu dal ndeysaan xoolal Macky ni mu daan def yàq suñu dëkk bi jël xaalis bi yëpp di ko noose loolu nag amatul fii ñi dañuy jël xaalis bi bokkook askan wi wàññil leen dund ba pare jël xaalis bi ñoom ñu ciy liggéey loolu baax na sëñ bi te ñu ci la nekk ñi ñu dañuy jël xaalis bi pour bokkook sénégalais yi pour mën a liggéey waaw wax ji lool mais liggéey bi moo gën a foor nag wax ji. moo gën mhm. <laughs> moo a liggéey mooy solo ci réew parce que liggéey mooy li nga xamante ne mooy li ñu jëlee ci bopp réew mi ah, gis nañ lu bare bare lu ci mel nag ci côté injustice mais xale itam ñu ngi leen réclamé ah ci côté cag yi. cag-cag bi defar rek la nag ba tey parce que munoo di daw te amoo ay ay kayit waaw il faut ñu am kayit di daw normal. loolu rek si jublu de mais du yàq xale yi pour ñu bañ a liggéey wala dara parce que ñun dañoo bëgg jigéen xale yi di liggéey. suñ leen téyee liggéeyuñu ñun problème bi su ñun lay nekk. mais bu buñ leen wanee ne leen maanaam da ngeen a war a takk kas ba pare yor ay këyit yu yoo xam ne boo dawee kenn du la téye soo ko kenn du la téye ñiy romb noonu kenn téyewu leen parce que am nañ këyit mais ñi nga xam ne amuñu këyit di daw dawee nu leen neex dañ leen di téye pour defar rek waaw pour defar rek léeg-léeg moto yi dafa am lu ciy raxaa parce que léegi ñu këf ay téléphone jàmbur wala këf yooyu yëpp ci xeetu defar bi la parce que fekk ki nit ku liggéey yore téléphone am bii nga ne ko coppet dem ak moom loolu jaaduwul fekk ku liggéey xamoo nu mu def ba am ab saagam nga ne coppet saagam daw ak moom jaadu lool yi moo tax ñu leen di téye nag di leen jàngal foofu boo demee ci police ba ay question leen leen di posé pour yoonu dëgg pour nga xam ne nii nga war a def booy daw nii ak nii ak nii pour defar rek ci defar rek la nekk incha allah mouvement bi day concerné pour jigéen kese wala pour ubbi ngeen porte yëpp ñëpp ñëw ngeen ànd ko tax a jóg soo déggee Sénégal nag góor ak jigéen ku ne xaj na ci soxna wali nag daa jóg ngir dimbali gën a jigéen ñi gën a dimbali jigéen ñi surtout jigéen ñi jigéen ñi dañ sonn de jigéen ñi dañ sonn ku leen jàppale ñu dem ay jàmbaar lan dañuy xëy suba ba guddi ñuy doog a ñëw ñooñu ku leen jàppale ñu dem ku bëgg a liggéey boo ko jàppalee day gën a liggéey man ci yooyu laa nekk sëñ bi yàlla na ma suñu borom jàppale nag ba ma àgg fu ma jëm incha allah rabbi yii di yéen ngi waaj benn événement boo xamante ne ni nu muy déroulé pour événement bi waaw sargal jomaay sonko la hmm. moom lañ ko tuddee suñu kilifa yooyu suñu jàmbaar yooyu suñu ndaanaan yooyu ah liggéeykatu Sénégal yi ñoom leen ko tuddee moo tax ñu leen di sargal samedi le 29 4 heures lay commencé ba minuit nay tàng tey xumb rek bu kenn raté incha allah nay neex rek. dama la inspiré nga dugg ci géewum politique yi ne damay jàppale jigéen lan la. waaw li ma si dugal lenn la parce dama gis ne maanaam war naa mën a defar ci dëkk bi war naa mën a jàppale jigéen ci dëkk bi. parce que gëm-gëm boobu dama ko yàgg am mm. su ma gisee Ousmane Sonko man dama ciy gis sama bopp mm. man dama bëgg ku gëm boppam ku ñime engagé wu te nekk ci dëgg man kooku laa bëgg loolu moo tox ma topp Ousmane Sonko ba tey jii maam dama gis ne maanaam li muy wax yëpp gëm boppam la te dëgg rek moo ko lal moo tax ma xam ne man tamit sama dëgg jooju mën naa ko bokk ak moom mu ànd pour liggéey Sénégal moo tax mu mouvement bi tudd ànd liggéey Sénégal sargal jomaay bi nag yëpp ko war a teewee incha allah rabbi ndax dina neex macha allah ci moom commencé ànd moom laa commencé yëg-yëg bu gis ci moom la rek daawoo dugg ci mbirum politique non du ma wax sax parce bi fi nekkoon dala neexu ma neexu ma ah. neexu que li ma gëm ñoom gëmuñu ko loolu tax man ànduma woon ak ñoom musuma wax seeni wax wax dëgg yàlla musuma wax seen i wax musuma lekk xaalisu politicien man Wally mm. parce que ànduma ak ñoom. li nu gëm gëwuma ko man li ma gëm mooy liggéey man sama wàll bopp li ma gëm mooy liggéey. waaw te Ousmane Sonko ci la nekk. ma ànd moom ci wàllum liggéey pour jàppale ko. réew mi benn nit mënu koo liggéey. kii day jàpp fii kii jàpp fii kee jàpp fee. bu ko defee réew bu mën a dox. mais pas Ousmane Sonko ak Diomaye rek ñu nekk ci terrain bi di liggéey déedéet. Mm. Wally jàpp ko ñam keneen jàpp fee keneen jàpp fee. bu ko defee réew mi mën a changé. Mm. ci yooyu la nekk yàlla na suñu borom jàppale nag ban àgg fan jëm incha allah rabbi am ngeen ñoo xam ne dañ leen di accompagner ci côté li nga ma ci côté liggéey bi wala wala wali mooy dem ak propre dooleem ak ak i moyen waaw wali daal a ngi nii nekk yaay sun ko nekk ci waar wi di liggéey eh, kenn takkul nekk sama ginnaaw nag kenn nekku si man maay demal sama bopp samay moyen bopp ngir lan ngir fier ci mag ci ci ci jomaay loolu moom ma ci dugal waaw da nga koy jàppale parce que waxul ne rek da ngay jël da ngay xotoog pour xaar euh, jomaay wala Sonko mu jox la déedéet man samay doolee bopp rek man ba ma koy génne billaay damay bég damay bég dama siy bég lool looloo ma si dugal te foofu laa bëgg àgg ñoom di liggéey rek pour ñëpp mën cee gis seen bopp sama jàmbaar yaa ngi taxaw waaw ñii samay jàmbaar yi fu ma jëm ñi ngi fa fu dem ñu ñooy di rafetlu waxtaan wi ah xam naa ne euh, peut-être Babacar la ñu amoon ci minute bi jeex na xëy na parce que bu may sànni temps bi mais waxtaan wi am na solo mooy ci gis-gis bi nga am ci réew ak gis-gis bi nga am tamit ci jeunesse bi tout le temps tamit kàddu ñëwaat surtout xale nekk ci prison yi moom bëgg naa ñu taxaw leen ñu jàppal leen sonn nañu keroog ba affaire bi amee ba léegi seen njaboot yi seen yaay yi kenn nelawul ñi ne fu ne dañuy jóge ci àll bi ñëw di fanaan kaw ci tali bi xam bu ko ci réew dara bu soobee yàlla nekk nekk ci la nga nekkoon nekk si jàmm sën moom wax dëgg yàlla Ousmane bu leen di gis sax gisoo ni muy mel nga xam ne dafa bëgg xale kon nekk di toroxal xale yi wala leneen non dañuy dem ah, dañuy dem du yàgg dara ci lool la nekk ah, dañuy ci loolu la nekk incha allah dinañ leen jàppale de mhm. dañ leen taxaw bu baax bu soobee yàlla dinañ génne tamit fi mu nekk mhm. pour mën a nekk ci sa ci réew mi pour liggéey incha allah bu soobee yàlla waaw bég rek mhm. di kontaan ci Penda Dramé Seynabou mhm. euh, Adel Nango Koura waaw sama mbokk yooyu wax dëgg yàlla maa ngi ci kontaan ci ñoom di tàggatoo pour ñëpp mën a teewee euh, sargal Jomaay Sonko bi le 29 bu ko kenn rate dina xumb dina neex yow yaa ngi ci biir di la sant bu baax ci déplacement bi maa ngi la ciy sant di la gërëm rafetlu naa ko trop waaw maa ngi woo ñëpp man maa ngi soxna Wally daal maa ngi jàppale Ousmane Sonko Diomaye pour liggéey dëkk bi mën a naat daal incha allah. incha allah na la waa fii jàppale nga dem fale ensemble ba toog di leen kaasal seen ñu ngi ci yoon bi daal ñu ngi liggéey daal yàlla baax na incha allah ñu ngi ci yoon bi ñu ngi liggéey na na nanu liggéey rek. waaw nanu liggéey rek bu liggéey mën ngaa dem fu ne. tant que yaa liggéey moom dara jomb te ci yooyu la nekk incha allah. bég naa trop. merci beaucoup